yéen kaay gi ne eh, bu fekkente ne tànn nañ ko waaye fu mu toll ni am na ci ay xeer yoo xam ne ni ay militant yi mu bokkal parti ñu ngi koy tegal dépend du parti bii di APR yéen kaay gi boo xëy dellu soit ci lu ni mel yéen kaay gi xëy dellu soit ci jàppante yu métti yu métti métti yi nga xam ne meeku nañ ko ni ki dem fa la ci xosanto ak Mama Xono di ñaari gox yoo xam ne nga nekk fu la ci diwaanu Kédougou ñaari doomu aadama ñoo jot a ñàkk seen bakkan juróom benn jot cee tey ci talaata lay jii ci talaata ji lay doon bu 19 jotee euh, sunu gaynde yi war a jàkkaarloog seen i bête noire noonu la ko yéen a kaay gii di Walf Quotidien xëy Fissel Abdoulaye fu mu taxaw waaw bu dee yéen a kaay gii di dafa xëyee dellu si waat ci Amadou Ba mi nga xam lañu tànn def ko mu doon

jaar-jaaram euh, yéen kaay gi nag xëy jël kàddu gi jox ko Mountaga Sy wax ne Amadou baax li mu war a def mooy fexe créer benn rêve euh, fexe daal ba askan wi amaat beneen yaakaar noonu la ko yéen kaay gi di la quotidien xëy Fesal Abdoulaye. Euh, turbine la ñu jukki. yéen kaay gi di la turbine ne Amadou Ba jamono ji nga xam ne ci lañ ko tànn daanaka dañ ko exposé ndax dafa ñëw si jamono joo xam ne nii. Sénégal ñu ngi dund ay jafe-jafe ci wàllu njëgu dund bi le xale yi liggéeyatuñu moo tax ñu bari ñu ngi mbëkk gaal yi ak it bataay gu jéggi dayo goo xam ne am na ci biir parti bi di APR yéen kaay gi ci loolu xëy dellu siwaat yéen kaay geneen euh, l'évidence bu dee yéen gi di l'évidence dafa xëy dellu siwaat ci coalition benn Bokk Yaakaar ne fu mu toll nii am na ci benn coalition boo xam mu ngi tàmbalee juddu te ki ko fas yéene sos mooy Arouna Dia Abdoulaye ak lenn ci ay milliardaires yoo xam ñoo jàppaloon président Macky Sall en 2012 ñoom nekk seen candidat ba ko yéen a kaay gii di réew mi quotidien yéen a ci doole ji nga xam ne Amadou Ba mën na ko am ci élection présidentielle 2024 yi ñuy dëgmal ndax dafa gis ne opposition bi fu mu toll nii booloo wu ñuy jéem a nekk benn te loolu nag bu amee amee atu gu rëy lay doon ci kii di Amadou Ba. leneen ci xibaar fës ci source a. yéen kay gii di source a xëyee dalal am Mame Mbaye Mame Boye Diao mi nga xam ne nii euh, euh, gars yi dañoo fas yéene samp laaj bëgg a xam bi nga xamoon na ko si taskati xibaar yi euh, ndax lam ci war wax ndax dafa fas yéene déclaré candidature am wala dafa fas yéene démissionné ci poste bi nga xam moom lañ ko dénk wala kon dafa fas yéene rangé wu ci ginnaaw Amadou Ba loolu kan ci kanam tuuti ci lañ ko ci lañ koy xam. Euh, yor-yor bi lam ñëw dikkee. waaw bu dee yor-yor dafa xëy dellusiwaat ci scandale bu jéggi day nga xam ne RTS def na ko te neexul ba neexul la nga xam def nañ ko du def lu may xotti orma suñu institution yi la noonu la ko yéen kaay gi di yor-yor xëy fësale ndax buñ tamit waa Benno Bokk Yaakaar di daje ci palais ba ngir signé signé maanaam ngir di seen candidat loolu di dëgg yoon lu jëm sax ci mbir moomu lee Bakar Domingo Mané wax na ci Ibrahima Lissa Faye wax na ci Abasso wax na ci waaye ku ci mel ku ci mel ni Bakar Dëmb dafa ne dafa jot rek waa koret koret wax ci lii yemale ki nga xam moo di noonu la ko yéene kaay gi Mamadou Mamadou Talla kon noonu la ko yéene gi xëy fësale enquête lam ñu enquête al bu dee yéene gi di l'enquête dafa xëy dellu soit ci élection présidentielle 2024 dañu ne ñu ngi jëm ci élection présidentielle yoo xam ne daanaka ñu bari ci ñi nga xam ne lañu fi tudd kenn xamu leen wala Euh, Karim Meïssa Wade Idrissa Seck ak ki nga xam moom moo di Karim moo di Mimi Touré euh, yéen a kaay gi ne ñu ngi jëm ci élection yi daal xam ne ni ku nekk mën na ko gàddu noonu la ko yéen a kaay gii di l'enquête xëyee fësale yéen a kaay bi di critique yéen a kaay gii di critique xëyee ne donte dañ ko doon bañ waaye fu mu toll nii waa Pastef ñu ngi ci nekk di waxtaan maanaam ki war a doon seen plan B yéen a kaay gi moo xëyee fësal lu ni mel euh, yéen kaay gi nag xëy daal ci amal ab taxaw seetlu Abdoulaye. taxaw seetlu génneen Sud Quotidien fu mu taxaw. waaw Sud Quotidien dafa xëy dellu si waat ci grève téeméer ak ñaar fukki waxtu yi nga xam ne ni liggéeykat yi nekk ci boo ko mooy daal di dañ ko créé maanaam ñeenti fan yoo xam ne dañoo fas yéene du lekk ak naan lànk ne kon duñ ko laal duñ ko euh, liggéey la ñuy daal ci gouvernement bu Sénégal mooy mu respecté accord muy dëppoo yi doxoon seen diggante wa illa seen xeex bi moom dañ koy wéyal noonu la ko yéen ji di Sud Quotidien xëyee fësal 24 heures lam ñu 24 heures Abdoulaye Xaye dellu siwaat jàppante yu metti yi nga xam ne mee ko nañ ko niki dem fu la ci diwaanu ñàkk seen bakkan li mu jotee jëlee ay gaañu gaañ yéen kaay gi nag lim bii nag dafay fekk si waat limuk doomu aadama yi nga xam jot nañ fa ñàkk seen bakkan yéen ne neexul ba neexul mm-hmm. euh, li fiy faatu bakkan bari na lool noonu la ko yéen kaay gi di 24 heures xëy fësalee yéen kaay bi di la soleil waaw yéen kaay gi di la soleil Abdoulaye dañoo xool seen daal dem fële nga xam ne si kër Mbay Fall euh, dem seeta ji euh, soxna si nga xam ne ni dañ koo faat di koo faat nag du kenn ku dul corom ci biir këram la ko fekk te dara wala ko lu mooy que maa la bëggoon bëggatuma la mm-hmm. dañoo bëgg daal suñu relation arrêté far far wa daal di koy reddi xatit loolu nag nekk situation bu doy waar dem nañ nag Kër Mbaye Fall jox nañ kër kër jël nañ kàddu gi jox dëkkaale yi ñu si bari si ñoom daal joxe nañu ay kay joxe nañu la a ba jotee lay doon euh, euh, moom wax na Ama Baldé parce que Modou Lo wax ne ne moom moo gën a pare mhm. Ama Baldé tontu na ko Ama Baldé ne ko juróomi fan ci weeru novembre yaa xam kan moo gën a pare